Euh, banlieue bi dafa am particularité particularité bi moo di ne suñu stade yi boo leen xoolee li ci bëri euh, fu ngay gën a jëppee sa bopp mooy toilette yi boo duggee ci toilette yi da ngay fekk ni dafa salte fees dell xeeñ xunn kenn mënu ko utiliser. Euh, bijou bi dañ ci def ay milliards te problème bi ñu am mooy ay nit yoo xam ni doy nañu ci qualité ci quantité ñu forme leen. ñu mën a maintenir bijoux yi loolu mooy suñu jafe-jafe moo amul. boo xoolee ci saytu fii ñu nekk tey jii ba tey jii may wax ak yow amul directeur euh, amul suffisamment ay nit yoo xam ni mën nañ nettoyer fii nii euh, ba ma fay mujj di def euh, entretien def reportage ci loolu jigéen ñi ma fekk fii bëriwuñu ay benn benn lañu. bi ma leen laajee da ngay gis benn benn jigéen boo xam ne mooy def liggéeyu juróom ba juróom benn nit nga laaj li ñu leen di fay ñu la ñeenti junni ci bijou bu toll nii ñu def fi ay milliards. tey ñu waroon jël ay nit yoo xam ne lu mu gàtt gàtt war leen mën a fay cent cinquante mille ñu ñu def liggéey bi mais loolu amul moo tax suñu budget yi bu ñu ko bëggee maintenir il faut mu am ay nit yoo xam ne dañ leen di tàggat former leen nga xam ni ñoom loolu rek mooy doon seen seen wàll mooy maintenir stade maintien moo amul loolu mooy suñu jafe-jafe. donc tey jii mbégte bu am bu bu mbégte bu baax laa am parce que déjà euh, thème bu ñuy développé tey. parce que euh, xam nañ ne tey jii pour que performance am. il faut ñu am ay stade ay infrastructure yoo xam ne yu baax yu qualité yoo xam ne dafa méngoo ak ay infrastructure yu ñuy def si bitimi réew donc yooyu infrastructure bu buñ ko amee dinañ am ay résultats yu baax mais defar infrastructure benn affaire la mais eh, garder ko te maintenir ko euh, kii ko bu baax toppatoo ko beneen affaire la donc loolu moo tax tey jii ñu toog fii ñu jël baaram bi joxoñ ko fu metti comme ça ñëpp xam ne infrastructure dañ koy defar mais il faut ñu gérer ko pour que bu ñu ko seeree bu baax euh, ñu mun a am ay performance à long terme